mooy jub jubal jubanti bi slogan boo xam ni Sénégal yu bëri dañ ko approprié wu gëm ko muy projet bu ñu bu ñu tënk te te te bi am ci projet mu am trois éléments un Sénégal juste prospère et souverain premier élément mooy un Sénégal juste pour nga am ko foog nga am Sénégal boo xam ni ci yoon lay dox ñu am ñu ñu dénk ko ñu nekk fi mu am lu ñu def lu baax am lu def lu baaxu lu ñu war a jubbanti am lu ñu def loo xam ni tax na Sénégal yu bëri jël leen fi parce que il fallait choisir entre la continuité et la rupture la continuité moo doon li fi nekkoon ni na ndox ñu bàyyi ko fi la rupture moo ñu indiwaat lu bees indi ko foofu ci dynamique rupture boobu tax ay sénégalais ñàkk seen bakkan mhm. des gens yoo xam dañu gëm le projet PASTEF gëm le président Ousmane Sonko gëm Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd ak ñoom di ci xeex ñu gëm ko aussi nekk dans une dynamique de coalition mhm. am ñu ñu ci tëj am ñu ci ñàkk seen liggéey am ñu ñu ci dàq ñooñu ñëpp la ñu doon xeex mhm. moo ñu am un Sénégal un Sénégal juste nag ko am bu fekkee ni lépp lu a jaar yoon yoon parce que rapport liggéey la sénégalais yi ñooy liggéey ñuy dagg ay impôts dajale ko muy budget ñu dénk ko président de la muy définir la la nation mu tas ko ci gouvernement ay ministres yor ko ay directeurs yor ko di ko doxal ñu teg ay kuréel muy OFNAC muy IG e, muy cour des comptes ñu ne leen saytu leen xool liggéey bi lan moo ci baax lu ci baaxut lu ñu war a jubbanti lu ñu war a améliorer ak lu ñuy bannir ñoo ñu def ay rapport depuis cinq ans je pense que trois ans yi mujj rapport yooyu génnuñu. Hmm. ci yenn koor yi ci bëree bëri boobu. effectivement président ñëw ni rapport dañ ko génne. bu ñu ko génnee dana permettre Sénégalais yi xam juróomi at yi jàll li ñu amoon ci xaalis dénk ko Sénégal jox koy nit naka lañ ko yoree ñan ñoo ci def liggéey bu baax ñan lañ ci war a félicité. Hmm. ñan ñoo ci def liggéey bu baaxul ñan ñoo ci def ay luubal loolu rapport yi moo koy joxe parce que état de droit loolu lay demee du chasse aux sorcières mooy fexe ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu mooy importance rapport yooyu. kon nag ngeen jàpp ça ça rentre dans l'ordre normal des choses effectivement ça rentre dans l'ordre normal des choses cest à képp koo xam ci avait fait une gestion vertueuse une gestion boo xam ne amul reproche amul lenn loo ciy tiit parce que corps de contrôle yi ko def ñu ngi ko def sous le régime du président Macky Sall mu defoon ay rapports yu nekk ñu war ko génne bu ñu ko génnee nañ ko depuis dem nit ñaa ngi apprécier ñu ngi xool bu ñu xoolee rapports yi ba pare ba am ko. président na ci tiré conclusion lépp loo xam ne war nañ ko cee def dina ko ci def pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais donc loolu état normal loolu la. parce que pour nga départ foog nga xam loo fi fekk. Mhm. li nga fi bàyyi woon nu ñu ko yore woon am na rapport yu ñu ci def mu am ay recommandation mu am ci ay responsabilité mhm. yow mi ñu dénk li nga war mooy da ngeen a wax rupture ba indi ma fi ñu war a def rupture rupture boobu nag pour ma def ko fii ak fii laa koy awale parce que lii ak lii fekkoon. d'accord donc d'où la pertinence mm-hmm. que ñuy publier ces rapports là. pour l'opinion euh, euh, sénégalaise.